benn aaya joo xam ni maa ngi jàpp ni alquran lépp lu am solo la waaye aaya jii day mat naa defaat taxaw seetlu borom bi di wax di nettali ci làmmañu ab yonenteem inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin adim inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin adim man de maa ngi tiit aay bi loolu lay wax man de maa ngi tiit su ma moyee yàlla bu yàlla dajeeg man fu sama ndigg fudd yu metti metti mbokk yi aaya jii day aaya la joo xam ni ay mbir yu bëri la ma suna ci yoo xam ni kenn ku ne ci ñun war na koo jël mu teg ko nasba ay rëy yi def ko comme ay lunette jamono bii mbokk yi mooy yàlla dafa bari lool te yomb waaye aay bii ku ko teg sa kanam mooy man de maa ngi tiit bu ma moyee yàlla su ma dajeeg moom mu rëkk sama digg ba gaañ ma gis nga mooy yàlla yi seytaane tey dafa jekk doomu aadama yi trop ci mooy suñu borom subhanahu wa taala te mooy yàlla kat jigut doomu aadama ndax saa bu nit ki mooyee suñu borom ba borom bi dajeeg moom te jéggalu ko dana ko gaañ da koy gaañ de wallahi da koy gaañ mooy inni axaafu in asaytu rabbi adaaba yawmin aziim seytaane nag mbokk yi mbaalam yi gën a garaaw tey ñu ngi ko jox jigéen ñi mbaalam yi gën a garaaw jigéen la koy jox pour mu nappal yént yàlla bi alayhi salatu wasalaam nee na bàyyiwu ma ci sama gannaaw ci xeetu lislaam yi fitna ju gën a garaaw ji jigéen ñi def ci góori xeet fitna ju gën a garaaw fitna ji jigéen ñi def ci góor yi mbokk yi nag xam ngeen yént yàlla bi alayhi salatu wasalaam valeur bi waxam am ak nit ki ni war a bàyyee xel su yonent bi waxee yonent bi mag la mu yàlla yónni te mag mu yàlla yónni ay waxam du dañ moo tax imam Sufyan as-Sawri demoon ba am quatre vingt et quelque ci ay at benn bët bii yàq daawul gis mu jël loxo bi teg ko ca fa ca def xanaa kon benn dootul gisati de mu naa man Sufyan li des ci sama dund gi li ma gën a tiit mooy jigéen fitna la moo yàqule ba mbokk yi imam bi toll nii ci ragal yàlla nga xam ni a'immatu ahli sunnati wal jamaa ci min akaabiri a'immatihim su dee moom moo doon tiit loolu mbokk yi ñun lan lan tiit loolu est-ce que ñun mi ngi xalaat ne fitna jooju kenn mucc amul am soxna amul ñaari soxna amul benn amul amul dara kenn mënu ci mucc ku dul fi yàlla musa ndax bu fekkee ab yonent yàlla moo ci mucc kon keneen taxut di wax defe naa yéen a ngi fàttaliku ak man yonent yàlla yusufa alayhi salaam xoolal yusuf ak martaba ji mu am ci suñu borom ak yàlla ni mu ko defalee ay daraja tagg ko tuddee ko saar comme ni ko mbokk mi doon jàngee sànq bi ñu julli xëy na benn bis ci xista bu gudd comme ni ngeen ko xamee mbindaanam njaatigéem bëgg ko te xoolal jigéen ñi mu garaawee gis nga bu la bëggee wallahi pexe yi muy lal pour féqatal la yàlla rek rek foofu moom amut technique amut muus amut dara yàlla rek moo la mën a dimbali soxna si dàq na mbindaal yi jël yusuf ana yusuf ak ana góor ak servir ak demal mbir ma ànd cuuraay ba ak ana na yooyu lépp ay mbir la yoo xam ay mbaaram la koy def ba yusuf miin ko bay dugg ci biir néegu biiram benn bis njaati gi di xëy dem mu préparé ko nag ba mu jekk wax yusuf na ko am lu mu ko indi yusuf ñëw ba ci biir néeg bi rek suñu borom bu ñu wa gallaqatil abwaab maanaam néegu biir ak taal mu ni karaj karaj xoolal xoolal xoolal bi tasbih wa gallaqatil abwaab gallaqat borom xam ne muy tëj xam nga li fi leen caabi ni mel tëj tëjaat te waxul albaab gallaqatil abwaab muy buntu saal baat buntu sarale bi ak buntu néeg ba daal di futteeku ba mel ni ko yaayam juree woon ni ko xayta la su nekk nii njaalo rek ibn al qayim rahimahullah mu ni yusuf yu bëri yu tax mu war a mën a njaalo daa daje woon ci moom ndax étranger la ci dëkk bi te étranger bëriwul lu muy am jom ñaareel mooy gone la te gereti gone dafay faral di sàkku dem ci bànneex ñetteel bi mooy njaatigéem moo ko sàkk kon kay risque bu ci nekk moom moo koy garal man sàkkuuma la ñeenteel bi mooy amul woon soxna te ku amul soxna xam nga say bànneex mooy gën a indi fitna waaye yooyu yëpp yàlla rek moo ko dimbale xoolal wa laqad hammat bihi wa hamma biha mu ne lawla an raa burhan rabbi kon tawfiq yàlla rek moo ñëw dëgg la yusuf jàmbaar waaye tawfiq yàlla rek moo ñëw kaay ñu njaaloo mu wóor la ne tey man ngaa njaaloo ak moom ngaa tëjee li néew fi man ak yow la te yaay sama vraiment yi taje pour mu njaaloo dafa bari waaye mu teg ci kanamam inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin azim léegi xoolal bànneex ba amu ko tëj nañ ko kaso ginnaaw buñ ko tàmbalee ca teen ba xool yi fitna yëpp yàlla fekk ko fi te mu nekk nabi min anbiyallahi salihin waaye fan la mujjee yàlla daal di koy jox ak nubuwa jox ko ne mu nekk nguur la maanaam su mu rante gim jaaroon yëpp suñu borom wëlbati ko daal di koy suppi nag dëpp ko mu nekk léegi ak nguur kon nag ginnaaw jafe-jafe yombal lañ daal di nekk yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku ak man xadis ba yonente bi ni fii ñett ña duggoon si xuntuma sa xadis ba booba ku nekk di wax jaamu yàlla gi muy tinoo gis ngeen ko waxoon yow suñu borom man kat dama amoon doomu bàjjeen ma bëgg ko lool ay mbokkam bi duñ ma ko may ma am alal jëkkër dañ ko mujj may ñàkk ndaw si ñëw na ci man di wax naa ko dimbali ma ni ko faw ñu jaalo rek ba muy ñetti yoon saa bu ñëwee ndaw si ni ko jaalo dee ma ko gënal ndaw si dem ba jamono njëkk ko mbokk yi loolu ñu ngi koy dund tey wallahi am na ñoo xam ne jamono da leen njëkk ba boo leen proposé njaalo ñu fekk si la su ne ñii ñu ngi koy dund ñetti yoon ndaw si ni ko loolu dee ma ko gënal xam nga ki naan dee ma ko gënal mbokk yi kooku am na ngëm yàlla bu ne ci moom waaye ci ñetteelu yoon ba dee ko ko gënal waaye tey jii lii ko gënal dee mu ne ko kaay ñu njaalo mu ne ko bismillah ngir mu jox ko ci alal bi ndaw si amatul pexe waaye xoolal ko góor gi ak ni mu ko jekkoo bi mu dari sëñ doon njaalo nu mu def mu fàttali ko aaya ji inni axaafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim nu mu def daal di solat ay yére génn daal di koy jox alal bi ko demal nga fari ma kooka day yaakaar na ni bàyyi na xel aaya jooju yeneen bi alayhi salaatu wasalaam xisas yi ñu nekkili ci buntu yi bari na trop ci fitnaal yoo xam dañ ko doon fitnaal ay nit benn borom xam-xam mi ngi nekkili benn waay boo xam ni moom dafa doon jaay fëgg jaay di jaay fëgg jaay ba dugg ci benn kër lii lu am na de mu dugg ci benn kër xam naa waa ji rafet ndaw si bëgg ko xamul nu muy def mu waxaale moom benn robb ba pare dara dese lu dul fay mu ni ko man yor ko sama fasa bi de waa kaay kaa nga jox la waa ji àndal moom mu dugg ci bunt bi ndaw si dugg ba ca biir néeg ba daal di futteeku te naa yegg yegg am am am xaalis bi waa ji moom yegg si ba ci biir ndaw si ginnaaw ku tëj bunt bi ni ko damaa bëgg ñu jaxal te gis nga booy bañ dama yuuxu léegi waa kër bi leen yaa ma doon fàtt gis nga maa ngi nii sumleeku te duma solwaat allahu akbar mbokk yi bu doon yéen ñu ngeen def bu doon mën a sax laay wax bu doon mën a ndax man ci laa bokk waa ji xam na ni njaaloo dee moo ko gën a ndax innahu yaxaafu in asaa rabbahu adaaba yawmin adim yàlla mi nga xam ni dul quwwati almatin te mooy borom tawfiq waa ji xalaat xalaat xalaat amut lu xelam daj lu dul xaaral ma tàggoo dem mënu ko léegi may watut ma dugg ci wàllu ci génn xaaral danaa ci biir duggal waa ji dugg ci biir rek jël loxo yi roob ko ci biir dem àll yi rek këlmoo ko raayoo ko ci kaw ba ci suuf bi mu génnee xam nga loolu dafa defaar wallaahi lii lu am la waaqee la bi mu génnee rek ndaw si du wax ko wax wax bi bon sax wax ko mu génn bi mu génnee moom it ak noonu mu mel xale yi di ko yuuxu ba tax xam nga day mënoon doon gis nga baada dalik wallahi yàlla daf ko defal fu mu jaarati di jaay parfum day xeeñ ci moom te du laal parfum dafa dem këram mu sànni yére mu dem sangu dellu si waat Abdul Hamid Kisk mas na maa déglu ci kasaram dafa yàgg moo tax bëgguma cee jaaraat di juum xista bu xaw a demee nii la man daal dama xamut dafa ñaan yàlla subhanahu wa taala miir bi moo xar mu génn wala ala kulli xaal man naa déglu xista boobu dafa yàgg moo tax ma bañ cee jaaraat ndax may bañ juum keneen a ngi nii koo xam moom dafa génnoon dem ci àll bi di jaamu yàlla dem ci pegg tefes bi muy jaamu yàlla xale yu jigéen ñi dañoo amoon sortie seen waa école bi ñu demee ba timis di bëgg a jot sortie bi jeex nekk ndaw si dafa réeroo gaa yi ci tefes bi ñoom gisuñu ndaw si ñu jël seen oto dem tefes ji moom kese moo ko def ak xale bu góor boobu moom dafa ñëw dafa ab xay jaamu ko ci yàlla mag la woon mu ngi gis ni biir nit ñi mënu koy jaamu yàlla mu dem ci àll bi timis jot mu julli ba pare génn rek comme heure bi rek seen ndaw si yenu loxoom di jooy topp tefes gaal ñëw fa oto bi dem na te man rek maa fi nekk mu ngi ko góor ak ku jigéen kii di gone kee di gone mënu ko yóbbu te fu muy fanaan te bu ko bàyyee fii nii ñii mën naa al te moom mi ngi teg xaymaam mu muy def ñennam fexe doomu moo ci xaw a tane te ci la fit na ca nekkee mooy indi ko mu banaan boobu te ñoom ñaar banaan kon su boobaa mbaa mu génn dem yoon te bu ko bu defut loolu ndaw ko dal lu gën a bon ndax nit mën na koo fekk def ko lu bon xelam daal di koy jox ni ko lu metti metti na ñëw mu fanaan ci biir te jigéen ak góor comme saas ak sawar gis nga li mu dikkee mu daal di xaaj néeg bi jël benn rideau defar ko moom mu toog ci buntu bi laay ndaw si fanaan ci biir ndaw ragal nag xamul ko xale bu góor bi dafay tiit yaakaar ne kii ña ko jaay mën na ko roy baa mu njaaloog moom yéene ni ku góor ki day toog ba mu yàgg su xelam demee ci ndaw si rek xam nga lu mu def ba ci nit bi jot ba mu jullee gee pare dafa boyal benn fourni fourni bu bu kenn di sax bari xal mu teg ko si buntu bi buntu bi su demee ba mu yàgg xelam dem ci ndaw si rek mu jël baaraamu sànqal ak jërëjëf ni ko camat ci biir xel yi ni ko ha inni axaafu in asaytu rabbi adaaba yawmin adim gis nga mbugal nii baaraam bi lakk de mu jël morso la mu toogaat ba mu yàgg xelam demaat ci ndaw si rek mu jël deuxième baaraam bi rek roof ci biir jàngaat aaya jooju mu dag mu mu lakk mu lëmas noonu la ko taxaloo baaraam yëpp lakk léegi ndaw si moom am na ñaari problème problème bu njëkk bi mooy li mu doon ci deuxième problème mooy kii lakk boppam est-ce que du jinne noonu nee na ndaw si muy nelawul nelawul nelawul ba fajar jot mu jug bi mu jógee waajib bi xam ne naaj la mu ne ko génnal nga dem sa yoon ndaw si li mu dikkee ñett li ko bàyyam mu ne ko man kii ma gis ci ragal yàlla musuma gis ci kaw suuf ku mel noonu bàyyam ni ko kaay wax ne fu mu nekk mu ne ko man fii suuf ñimituma faa dem mu ne ko tegtal ma mu tegtal ko ko ni ko bokk na ci mandarga yi boo demee boo gisee di nga gis mu lëmat mbaa bu lëmatul juróomi baar yëpp la waa ji topp fefes gi di wër di wër di wër ba gis waa ji bi mu ko gisee mu jël ko fajal ko loxo yi ba mu wér ni ko yow yaayoo yoo mayal sama doom lan di koy maye gone boobu te yii may nit yi ay waaqia la yu am na du ay léeg du ay dara déedéet ay borom xam-xam ñoo ko nit yi kon dama bëgg ñu xam ni mbokk yi wallahi fitna yii yàlla rek moo ci mën a dimbale ci saxaraan ba noonu ngay gisee ñu daanu man xam naa koo xam ne ni mu jàmbaare ah ñun de xam naa ñun ñii maa ngi yaakaar ni cër yi ñu am ci yàlla sax taxut koo am solo waaye defe naa ne moo ñu waroon a ëppale cër yi ñu am ci yàlla lu mel nii gaar pour wan la dama dama nitil li ma nitil safaan bi ngeen gis gis nga bi ko lu mel nii gaaree ndaw si ñëw ba ci moom rek song amul benn fexe mu mën a def ba mu seytaane jàpp ko mu yegg ndaw si ku doon góorgóorlu la koo xam subhaana rabbina al aala yow buñ la ko waxal ba nga xam ko rek yow da ngay mujj yow léegi da nga naan kon man dootuma muccati moom ci kàttan suñu borom li may nitil lu ma wóor la ndax man maa dem ba toog ak waay mu wax ma ko ci gémmiñu boppam defe naa foofu moom fala nitil ma ko yem kon li ma bëgg a wax foofu mooy wa kadalika ci loolu jamono bi ñu dund laay wax ni wa kadalika am na keneen koo xam ne daf na autorité bi moo ko doon ci di jàngal benn jigéen te gis nga di jàngal jigéen ñi mu jàngal ci ñun mënuñu koo bàyyi parce que boo ko defut musiba am ndax boo ko jàngal lu leen jàngal léegi koo xam ne dañu meer la daanaka benn bi xam naa ma bëgg sag saraxana si sag bi amul nu muy def mu daanu daanu lu feebar xam ne heure bi lu sag bi ñëw mu daanu daanu lu feebar fu teeku ba tët rek sàngoo sàng ba oustaz bi ñëwee rek mu commencé di jeejeelu di wax ndànk sama bopp bi day métti woo leen ko mu ñëw moccal ma ko moom it xam nga rek moom ab saagam ñëw dugg di ko ko moccal bi mu ko koy moccal rek ndaw si mu réer te xam nga jigéen gis nga dafa mel ni ay étincelle maanaam yaramam moo Abdoulaye ibn Abbas nee na jigéen bu génnee këram même bu ne damay jaale ji sax seytaane ko la mus mu ne ida xarajat al mar'atu istashrafaha sheytan waaye bi loolu amee moom it mbokk mi am xel kat ni ko nekk ci loos bi rek xëcc rek bët li ko sidit yi bu ñu ko téyee bu ñu ko bëttee boobu sax da ngay dee ndaw si mënta yuuxu mënta def dara waa jël nag kon nag ko ba bu ko bàyyee moom xaw ma lu muy tal waaye yuuxu sax du ko man mu ne ko yalax ngàbbu saagam génn dem kii keneen la am na kenn koo xam ne bi ko lii dalee moom foofu dafa bàyyee jàngale keroog mi ma koy nettali nee na moom moo ne am naa fa arrêt weer weer wu mujj de ba léegi sax ma ne ko doo ko jël mujj boobu weer fay suur na kon li ma bëgg ñu xam ko mooy mbokk yi gis nga fitna ji ku ci mucc mooy ki yàlla musal rawatina jamono joo xam ne dafa mel ni jigéen ñi amul sol yëri amul amul amul benn benn benn benn baaraam awaaji bi am te maa ngi dénk sama bopp di dénk ndongo yi ñu xam ne gis nga awree jigéen ñi wallahi ku koy xool doo mokkal doo sellal mbaa loo mokk mu fàtte ni quran boo ko mokkale da koy fàtte ndax al ilmu nuurun wa nuurullahi la yuhda li aasim والشافعي من شكوت إلى وكيع من سوء حفظي فأرسلني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي dama jékki jékki sant bi mënatuma mokkal affaire bi nekk ma toog ma dem di sama sëriñ wakki am ni ko doo xelal mu ni ko xawma lu xew waaye daal bàyyil mooy yàlla ndax mooy yàlla xam-xam leer la te leer yàlla du ko bàyyi muy jaabaa jonge ci bopp mooy ko fi yàlla moo tax seetlu lii ma lay bëgg a wax gis nga réewu saax yi mucc fi dem ca àll ba tey boo demee ci àll bi dante dañuy ni ñu mën a mokkale nga def du kéemaam yàlla du dara de nit ñi benn lañ waaye problème mooy nit ki duñ gën a soree mooy yàlla te di ko xool ak di ko déglu kenn ka laaya ak ñu xolam nekkee wiha min awiyati l ilm mooy ndab ci ndab xam-xam ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak bi àllaaxira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi